waay waay waay waay ndeysaan stade bi li muy sedd sedd ñaari mbër yëguñu ko at bi joxe na consigne ñaar bi de touche yi trois heures bi di guy gi pare nga soufflé nañu combat parti Siteu def benn recul bu ndaw Leewtoo boo sori yool Leewtoo ko guy ga la tàllal lépp tey ci loxo gauche la ko jëlee Gouy Gui même boo ngebulu jaune Siteu ngeen boo ngebulu juul dimanche avril fii ci stade Le Poste ku ne di jàng sa morom arbitre nee na yeex na bàyyi leen saako yi si ci làng gi fit yëpp a ngi maas gewel yi rek ngeen di dégg nee nañ juba bu gi na la ne moo nekkoon ci ginnaaw yërëm arbitre ne sol jege leen saako digg leen ci bi gën nañoo dëgg seen bopp diggante guy gi ak Siteu Siteu gi a gaawal combat bi waaye teewul mu ngi di tekk di ah guy gi daawul xaar xaar bu yàgg de guy gi Siteu waaye sangoor yi ci loxo guy gi bari na jugi na na der nag ah Siteu dox na ci kawam song na ko ah, enchaîné ak moom ay percute teg moom jëndee ko. ji gaa ngi doon rek pour ba koy rukk ni ma koy faral di waxee téye na ko si tàngi jàppante nañu jële tànk ba wéyal na ko na gi ko na mi koy jéem a ay waay combat bi léegi mu jeex si taguy gi téyante nañ jàppante jàppante bu dëgër jàppante kaw guy gi rasu na a sampi tànkam jóge wan leen ginnaaw noo ju ci kaw mooy Siteu téye ko épaulé ko seere ko ba téye ko à cent quatre-vingts degré mën ta yëngu ma ngay jëme di ba dayul ah Siteu rasu na guy gaa ngi door ay percute eh, musique boobu ko déggee ma si tànk koy jéem a buddi ma ngi koy dawalee jéem a moom ci saako yi waaye demul noo jiwaat nañ la suwaa taxaw ci digg làng gi jàppante guy gi jàpp ngemb la si te jàpp jeng la ñu nen na ngante attention sengoor yu bari yi wóorul jàppante nañ jàppante bu dëgër ku ne jàpp sa ngemb nga room nden sa morom guy gi nooju na ban technique moo war a génn diggante guy gi bu dee bu na waaye ba tey amagul possibilité pour mën a door wala ma am possibilité pour mën koo téye téye boo xamante koy jëkk fan la bi mu ci ñu xool jàppante na jàppante guy gi Siteu guy gi Siteu ña nga jàppante guy gi tey bu dëgër si jemb la bu dem nu muy def guy gi Siteu ña nga jàppante

jël na ngembali ci ginnaaw moom Siteu gugi nooju na mi ngi gën a génne ku waaf Siteu nga koy jéem a jël waaye man dem longiture attention gugi bi ma gis bu amee nu mu jàpp tuuti rek buddi la na attention waaye attention Siteu ni mu koy jëmee tuutee tee mu ko Gouye Gui jàpp na mi ko deng-deng attention technique nar naa feeñ Siteu takk ko wéyee na ko wéyee na ko Siteu takk na ko bés na xëcc ko ko ci wetam bëgg koo galgal waaye demul la ilaha bu ko takkaatee mu jeex de Siteu Gouye Gui action bu doy waar na doon am na ko xëcc ko waaye daa xaw diis bëggoon koo taf galgoon ko galgal waaye demul attention jeex na Gouye Gui Siteu ko sànni gal ko ko sànni guy gi daan na guy gi daan na guy gi daan na waaye bëri na ba naaw bëri na ba naaw la ilaha illallah guy gi guy gi bul jooy guy gi guy gi waxal ak man bàyyi dee bàyyi waaw Galaye Diego tey